Rewmi 24 TV. salaamaaleykum wa rahmatulah sénégalais ñu ngi ñaan sëñ mu yàgg waaw di leen wax gën leen focus patriote yéen sénégalais gën leen focus gën leen taxaw Macky Sall li koy war xamal li koy xamal mooy troisième mandat fii si réew mi du fi am duñ la ko may fi du fi ak mandat yow yow nga Ousmane Sonko fu la neex waxal te Ousmane Sonko yow Macky Sall mënoo ko teree doon candidat bu la neex da ngeen di porsa Adji Sarr lu la neex defal parce que yow bëggoo jàmm yow Macky Sall sa Macky Sall iblis la seytaane la man loolu laa gis man Boubacar Sall Macky Sall bi ma doon gis au 2011 nga xam ne si buñ taxawoon si kanam di dem di mars Macky Sall man bi ma doon gis si kanam nga xam da nga koy gis ni tata mi tubéy bi muy sonni di ñàkk tooy ya, xep tata mi ñàkk ni fim mu ni nii seddaay boobu lay moo tax muy say nii dugub ne forcé nit ñi troisième mandat parce que xam na ni si tàngoor moo tax mu bàyyi woon nit ñi opposition bi si place de l'Obélisque dugg si dëkk bi dugg si ay otoom naayuma dem si dëkk yi àll yi nax leen na leen ay vingt cinq mille nekkee président nangam nangam la doon xool dañ la toppoon Macky Sall yow parce que dañoo gëmoon ne Fatick nga dëkk si dans les îles jàppoon na yow boo ñëwee di nga defar dëkk bi gëm nga gis nga nga Ablaye Wade ni tamit ñu doon def alalu askan bi mais yow yaa dàq sàcc yow Macky Sall yaay président bi dàq sàcc Sénégal yow yow li nga wax nii rek bi la bi la bi la alaaj ali Assane Gueye di ay ay cent milliards nga teg ko ne pour baykat yi nga naan am na ñoo xam ne dañuy taxaw di xaar boo dugalee xaalis ñu capté ko ñan ñoo koy capté kon say nit ñoo koy capté kon Macky Sall yow sàcc nga yow en tant que président de la république ngay taxaw naan xaalis adduna bi nii buy jaar fii dañ koy capté ñan ñoo koy capté ko yéen Sénégalais yi dama bëgg Sénégalais yi booy ku may dégg sama vidéo nga xam ngeen yeew si Macky nga xam ne sàcc la ñun dañ ko doon gis 2011 ñun 2017 fii lañ dugg Espagne te si géej gi lañ jaar 2017 lañ ji xam ne Sénégal du dem ñu jaar si géej gi nii booy sacrifice suñu bopp yi Macky Sall sàcc la bu yeboo Sénégalais ngeen jóg préparé bu leen am bu bu woowee Ousmane Sonko lu si loo xam ne du na ngeen def maas nii taxaw woon ko ne ko Macky Ousmane Sonko ko dinañ toj sa lëfal ndey yow Macky Sall barki Serigne Bamba Macky te troisième mandat boo ko turee si dëkk dinañ toj sa lëfal ndey loolu dama bëgg yéen bépp jeunes yëpp ngeen taxaw ci loolu parce que ñun si géej gi lañ jaar mënoon a dee te suñuy rakk ñu ngi taxaw bu mënuñu am cent franc Sénégal kenn mënu fa am dërëm kenn mënu fa xëy weer dee nga am deux cent mille franc du si géej gi du si mbay mi du fenn fooy gañee xaalis Macky Sall bu waxee troisième mandat da ngeen toj lëfal ndey temps bi toj lëfal ndeyam nii waxuñu suñu dëkk bi bu waxee Ousmane Sonko du fi nangam nangam da koy jëm ngeen toj lëfal ndeyam nii booy du du dara ñàkk rek lay daw. parce que xam na ne da doon ñàkk taatami di tooy noonu mu xuura mi di ñàkk nii buñ doon def place de bi di dox nii da nga koy gis mu ñàkk nii fi mu toll nii kilim yi moo tax muy say nii duñ la may ndey troisième mandat ku gis vidéo nga partagé ko patriote yi Macky Sall du dërëm tapet la loolu laa la am moo ñuy jiite ñuy am luñ di di sonal ndey Sénégal yi tapet la sàcc la